بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ثم اعلموا أننا لا زلنا مع يوسف عليه السلام دروس وحكم وعبر في قصته الكاملة في سورة يوسف فها نحن مع الخطبة الثالثة حيث يقول المولى عز وجل وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فقد رجع العصبة إلى أبيهم يتصنعون البكاء تمهيدا لخبر مشؤوم كان يعقوب يعرفه ويتوقعه فألقوه إليه من غير مقدمات كما يقول الشاعر كجلمود صخر حطه السيل من عل فألقوه على رأس أبيهم مع كلام يتناقض مع الوعد التي الذي وعدوه على أنفسهم وكلام آخر ختموا به هذا الخبر يدل على كذبهم فيما ادعوه دلالة لا تبقى ريبة لا تبقى ريبة لمرتاب في كذبهم وتزويرهم فجاءوا بقميصه مملوءا بدماء هي الكذب نفسه هي الكذب نفسه فنظر يعقوب في أقوالهم ولم يطل النظر فيها لأنها شازجة تدل على بلادتهم وجهلهم بسبك المؤامرات وتلفيق الحجج والبينات هو الأمر الذي جعلهم يفضحون أنفسهم بأنفسهم فجاءوا بكلام فيه إدانتهم فمن أخيب ما وقعوا فيه ذلك القميص الذي جاءوا به ملطقا بالدماء وهو يخلو تماما من آثار الذئب الذي ادعوا أنه أكل يوسف فنظر يعقوب عليه السلام في هذا القميص متعجبا منهم ومتهكما بهم فقال ما أكرم هذا الذئب وما أحلمه أكل ولدي وترك قميصه كما هو فسقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا وعلموا أن أباهم لم يخف عليهم أمرهم فبادرهم بالإفصاح عما في نفسه واستعان عليهم بالله وتصلح بالصبر الجميل حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا وإذا تدبرت يا عبد الله كلمة جاءوا أباهم عشاء تجد عقلك يعصفك بالجواب وهو أنهم جاءوا عشاء لئلا يتفرس الكذب في وجوههم فأبوهم أبوهم وهم يعرفونه فمن حاول إخفاء شيء ظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه كما كان علي بن أبي طالب يقول وتأمل أيضا قولهم يبكون ولم يقل يتباكون وحقا أنهم كانوا يتباكون فجعل الله سبحانه وتعالى تباكيهم بكاء فسماه ذلك ولا يدل ذلك إلا على جهلهم المفرط بسبك الحيل والمؤامرات لكنهم يحسنون التمثيل إلى حد كبير فأنزل الله سبحانه وتعالى تباكيهم منزلة البكاء ليفهم القارئ أنهم أهل تصنع وتمثيل ومع ذلك لم ينجحوا فيما يخفونه من كيدهم إذ قالوا لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وهذا المثل أيضا كما يقول العرب كاد المريد أن يقول خذوني ويقول المولى عز وجل وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين فظل يوسف في الجب حتى جاءت قافلة تجارية فحطوا رحالهم بالقرب من مكان الجب وأرسلوا إليه من يأتيهم بالماء منهم فأدلى دلوه فيه فتعلق يوسف به فلما رآه الساقي طار فرحا واستبشر خيرا فانطلقوا فانطلقوا وقافلتهم إلى مصر حيث باعوا هناك لرئيس الجند وأمير الخزانة وهو من يلقب بالعزيز بثمن بخس دراهم معدودة كما وصفه المولى في كتابه وكانوا يريدون أن يتخلصوا منه بأي ثمن خوفا من أن يتلقاه أن يتلقاه واحد من أهله فينتزعه منهم يقول المولى عز وجل وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرم مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين فانطلق العزيز بيوسف إلى بيته وكأن الدنيا كلها قد جمعت في يديه وشاركته امرأته فرحته بقدومه ورأت فيه ما لم تراه في غيره من الوسامة والجمال والجلال فقال لامرأته أكرم مثواه عسى أن ينفعنا في شؤون الملك والسياسة أو ننزله منا منزلة الولد فإني أرى فيه من النجابة والذكاء وسعة الإدراك وبعد النظر ما يؤهله لذلك فتبوأ يوسف مكان الصدارة والعز في بيت العزيز وتعلم فيه فنون الحكم والسياسة مع ما علمه الله في فنون التعبير والتأويل والعلم بشؤون الدين والدنيا فأتاه الله الحكمة وأدبه فأحسن تأديبه وجعله من المحسنين في القول والعمل ليبعثه إلى الناس ك... إلى الناس في زمانه رسولا يخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه فزاده الله رفعة وجلالا في قصر العزيز أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم mbokk yi nu ngi dénk sunu bopp di leen dénk ragal yàlla ci wattandiku ay tereem ak farlu ci def ay ndigleem ñu ngi koy dénk sunu bopp di leen ko dénk ñu ànd fàttaliku ni sunu ñaari xutba yi weesu ñu ngi nekkoon ci ay xikam ak i ibar ak i duruus muy ay bind akum njàng ak seetantal moo xam ne mën nañ koo def ci nettali bi yonent yàlla yuusufa alayhi salaatu wasalaam nga xam ne sunu borom daf koo beral aw saaraw lëmm nettaleem ñu mu yem ca wuuteeg ni mu nettalee xissa yeneen yonent yi borom bi tuddee ko ahsanal qasas muy nettali bi dàq ci nettali yi ndax la ca nekk ci am njàng moo xam ne doomu aadama da cay jëriñu ci wàllu àddina ak àllaaxira ni mu baree yegsi woon nañ ci foofee nga xam ni fa la mbokki yuusuf ya jàppee woon yuusuf tàbbal ko ca teen ba waxoon naa leen ni ñëwuñu ngir tafsir saar wi déedéet waaye ñëwuñu ngir nettali xissa bi rek dem déedéet waaye la ñu tax a jóg dëgg-dëgg mooy njàng mu am solo mu ñor mi nga xam ni moo nekk ci biir saar wi yi nga xamante ni bu ñu jógee kat yii dañ koy jariñoo ci suñu wàllu diine yee ñu koy jariñoo ci suñu doxalinu àddina borom baa ngi wax ni subhanahu wa taala xale yi kat ba ñu tàbbalee yuusufa ca teen ba jaa'u abaahum ishaan yabkuun dañoo bàyyi ba waxtu gee jot gannaaw timis ñu yalang yalang yi commencé ñëw nag di jooy bi ñu yegsee ñu ni seen baay ah ñun day dañoo bàyyi woon yuusuf ca barab ban doon sàmmee mu toog di garder sunuy bagage till ga fekk ko fa lekk ko ñun sax wóor nañu lu lamanti waxit doo ko gëm ndax da ngay foog ni ñoo ko sàkkal pexe ñu daal di indi mbub ma fekk bi ñu ko rayee ba noppi bi ñu bi ñu tàbbalee yuusuf ca teen ba kenn ca ñoom daal ni ah bu nu yeggee ni ko till ga lekk na ko bokk na ci firnde yi gën a rëy mooy mbub mi day taq deret ñu rendib gàtt taqal ca deret ja daal di ŋàbbu xamis ba indi yonent yàlla yaaquba ne leen ah lii day jëf ju bon la joo xam ni seen bakkan yi moo leen ko digal waaye nag man moom maa ngi sàlloo muñ muñ gu rafet te bàyyi mbir yépp ci yàlla ndax yàlla moom dina leeral lépp foofu di nga ci gis ni xale yi ñu yeewu lañ ndax keroog ba ñu defee lan def ba noppi ci lañ indi xabaar bu bon boobu nga xam ni mi ngi mel ni rek la imrul qays doon wax ba muy tagg fasam wa ndax imrul qays waykat bu mag la ci waykati arab yi ci shoraawul jahiliya biñ ko waxee loo biñ ko waxee loo xam ci sa fas wi لمكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من عال nee na fas wi boo ko làbbalee mu jëm ca kanam di daw nee na day mel nii rek ak melax nee na loo loo ko mbas mbas mbas tourné ko rek mu départaat rek day mel ni xel wa mu àndaloon su tourné song ak dëgmal mbir noonu la ci gaawee gaawaay bi daal su ma ko doon melal day mel ni rek aw doj wu fàqee ca kaw rek waameem taw bi daal di koy daaneel rek mu ni putt ci suuf xam ngeen luy wadd moo gën a gaaw luy yéeg mu ni fas wi noonu la mel borom xam-xam yi ñu ni xabaar bii ñu andi day mi ngi mel ni aw doj wu ñu jël dóor ko ci kaw bopp yaquba alayhi salaatu wassalaam ñoom kat bi ñu yegsee dañuy tàmbale di jooy bi ñuy jooy yaqub laaj leen lu xew ñu ni ko ah yusuf day till ga lekk na ko waaye yaqub ku ñor la donte gone it ñu man li ñuy def lan yaqub xool li ñu wax waaye yàggut ca xool ba da koo déglu rek romb jàll mu daal di xool xamis bi muy mbub mi gis na gaa taq na deret deret jaa ngi nuroog deret ci till waaye nag li jaaxal yaqub mooy xanaa till boog bu ñëwee fekk gone mu lekk ko xanaa lu gàtt gàtt gàtt benn bën bën sax war na ko bàyyi ci mbub ma yaqub daal di xool mbub ma ba mu gisee gis mu taq deret mu ne ah ma ne till gii jaaxal na ma till gii moom moom laa biir na kat jàpp sama doom ji lekk ko ba mu jeex te mbub mi xotteekuwut fenn bi mu waxee loolu rek xale yi mel ni aw doj wu ni rëll ci seen dënn yi ndax xam nañ ni góor gi jàpp na leen ndax till mënul jàpp gone lekk ko ba noppi te xottiwut mbub ma bënnul benn bën bën bi waxee loolu kenn ku nekk si gi xoolaat sa morom ndeke ñoom kat dëgg la fàttaliku nañ indil mbub mu taq deret waaye dañoo fàtte nag daggate mbub ma xottate ko ngir wane ni till gi kat daa xotti mbub ndax mënoo lekk yaramu jàmbur lu dul da ngaa xotti mbub ma ba noppi ah yaaquba mu ni wóor na ma ni lii de am pexe la am na lu nàkk ca gannaaw waaye nag maa ngi delloo sama bopp yàlla muñ ba keroog yàllay def lam dogal lu am solo ngoog mbokk yi nattu saa bu yegsee olof yi yonentu sasam day wax ni asabru inda sadamatil ula olof yi naan muñ ca réll ju njëkk jëla ñun kat dañuy am natt wallu fu ne wax lu ne saalit das-dasi dañ dañi ba pexe yi jeex ñu ne xaaral ma bàyyi ma ma dellu ci yàlla fekk déet loolu dellu ci yàlla la xaaral ma dellu ci ñàkk pexe la tudd moo tax ñu bari ci ñun natt dal na ci seen kaw seeni mbokk di leen muñ loo ñoom it ñuy muñ muñ lu foog ni am nañ tiyaaba fekk amun tus asabru muñ inda sadamatil ula gis nga yaquba nekku fa naan kañ defi lii kañ def kàddu gum njëkk a wax rek mooy allahul mustahanu ala ma tasifun fa sabrun jamil bu soobee yàlla dinaa muñ muñ gu rafet waaye bàyyee naa mbir mi ak sunu borom ndax sunu borom moom lam nam moom loola faw rek mooy am boo seetloo ci wàllu jàngat ak seetlu ñaari yëf am na foofu bi ci njëkk mooy jaau abahum ishaan bi ci des mooy yabkuun xale bi ñi ngi ko tàbbal ca teen ba bëccëg te gone yi bu tàkkusaan masaan a jàll rek ñu ñibbisi léegi ñoom ñu xalaat ni bu ñu ñibbisee ci leer gi suñu bàyyi góor gu yeewu la bu ñu xoolee dana xam ne ñun dañuy kàcc nañ bàyyi ba waxtu timis jot nga xam ne day lëndëm booba làmp yi melut ni mu mel tey su ko defee xam ngeen ni waxtu lëndëm booy jooy jooylu ci lay gën a porté sooy jooy jooylu ci waxtu leer ñoom xam nañ ni bu ñu ñëwoon di jooy te fekk waxtu bëccëg la lu jooy ñor-ñor bu leen yàquba xoolee dana xam ne ñii dañoo créé fii kon mooy jaau abahum ishaan dañoo bëgg a nax seen bàyyi waaye léeg-léeg am na mag yoo xamante ni mënu leen a jàll kon di nga gis ni léeg-léeg nit dana yewwu ci yewwute goo xam ne yow boo yewwul comme moom rek mu nax la jàll loolu di nga di nga ci déggee ni gis nga kilifa ku ku war a dal la ku war a yeewu la rawatina bu la yàlla nattoo nga amuk njaboot nga jaboote da nga war a amuk seetlu xam looy wax xam foo koy waxee gis nga yonent yàlla ba ci ñuy wax ni Shuayb la ba Muusa rombee ñaari doom yi jigéen yi wëggal leen seen jur ga bañ teelee ñëw dañu maa xat bu kuma ah Muusa ni waaye lu ngeen def fii ñu ne ko ñun day suñ bàyyi ay doom yu jigéen rek la am amul ko ko wëggal ñun ñooy wëgg Muusa wëggal leen yëf yi gaaw mu yegsee seen bàyyi dañu leen waaw yéen lu tax ngeen teelee yegsi tey kon kilifa day contrôler njabootam waaye heure bu waaye ñëw neex génn heure bu waaye nekk te yàlla dana la ko laaj ëllëg ca lañ ko waxee ni ko dañoo daje génn góor gu baax moo ñu defal nangam ak nangam mu ni dem leen ngeen wool ma ko muy Muusa alayhi salaatu wasalaam yaquba bi xale yi bàyyee ba waxtu guddi jot ñu yegg si la tax ñu taamu guddi mooy jéem koo nax waaye nax ga jàllut ñaareel mooy borom bi mu ni yabkuun ña ngay jooy mu ne ñëpp xam nañu dañuy jooy jooylu ndax lan def ak caay-caay la jooyuñu parce que Yuusuf ñoom ñoo ko tàbbal ca teen ba waaye alquran alquran mbokk yi téere bu kéemtaane la bokk na ci kéemtaane gi mooy maanaam mbir da koy jox gëddaam ba nga yëg ni jox na ko gëddam ngir nga déggee ci ni gis nga gone yi dañ doon jéem a nax seen bàyyi doonte jàllul waaye ñu man li ñuy def lañ ñoom it ndax benn till gi ñu rey xar mi ñu rey ci seen gàtt ya taqal ci deret ji bàyyi gi ñu bàyyi ba waxtu guddi ñu ñëw ñaanal bi këree gi ñu këree ay jooy di jooy jooylu moo tax it boo nekkee kilifa jaboote yu mel noonu warulaa gaaw a yëngal maanaam kuy jooy ak kuy yuuxoo kuy fët-fëteeg déedéet àndal ak sag dal rek yaaquba bi ñu yegsee ñoom borom bi mi ngi wax yebb kuun ñi ngi jooy te moo ne jooy jooylu te arab xam ngeen bu ne yebb kuun mooy ña ngay jooy jooy yi dëggantaan waaye suñu woon yeta baa kuun mooy ña ngay jooy jooylu borom xam-xam yi dañuy wax ni li tax suñu borom ni wut jooy jooylu te mbir ma di jooy jooylu mooy day wane ni gis nga ñii man nañ li ñuy def man gu doy ni seen jooy jooylu ga dañ koo sopp ba nuroo ki jooy ba mën a nax nit moo tax borom bi ni yebb kuun ña ngay jooy waaye mbir ma ay jooy jooylu rek la bi loolu amee seen pexe ma taxut mu jub ñu gis seen xar kanamu bàyyi xam ne ni gëmul liñ wax ñu teg ci wa ma anta bi muminin lana walaw kunna saadiqin ñun de xam nañ ni sax liñ wax doo ko gëm doonte wax nañ dëgg loolu nag mooy la arab yi léeb naan nit bu xelam dalu nit bu xelam dalu maanaam la la la nga ko war a layalee moom mooy jéem a wutal boppam ay lay loolu lañ naan sàcc bi xaw tuuti kon yow mi enquête boo teeyoon rek mu ni maa sàcc kaadal muribu an yaqula xuzuni kiñ tuumaal yow mi enquête boo teeyoon rek léegi mu ni man a gis nga ñoom seen bàyyi waxagut ñu ni xam nañ ni sax doo ñu gëm loolu lu ko fi indi gis nga yooyu yëpp ay njàngat la yoo xam ni képp ku yàlla def mu nekk ku jaboote wala mu di àttekat wala yu demee noonu sewi sew yu mel ni war na cee bàyyi xel moo tax boo seetloo àttekat yu njëkk ya gis nga ñii nga xam ne tey ñoom ñooy ñoom la ñuy wooye ay waa digg ak ay yu demee noonu ci mën a mën a seetlu wallaay ñu njëkk ñaa leen gënoon a yow téeméeri junni yoon ak fukk lu ko waral mooy jumtukaay yi ñuy am tey ñoom amuñu ko woon waaye ñu mënoon a seetlu lañ ñu mënoon a seetlu lañ te mën a def ndànk ci àtte am na ca koo xam ni dañ ko indil ab jegéen jegéen ja laxasu xale bu góor ba ni xale bu góor bi moo ma doon sàkku moo ma doon nàngam ba ñëpp jàpp ni noonu la dëgg la ñu ni nee rek xale bu jigéen daal di yëkkati ay séram wane am ndox mu tàq di nu ndoxum góor attekat bi jaaxle waaye na mu def moo lay wan ni gis nga boo boo dee atte faw nga teey mu xool ndaw si xool xanamu xar kanamu xale bu góor bi xam ni xale bu góor bii dafa mel ni moo wax dëgg ndekete ndaw si dafa dem toj ab nen dafa yóotu yóotu ko góor ki jotu ko mu bëgg koo tuumaal mu dem toj ab nen jël ndoxum nen bi taqal ko ci ay poojam di wane ne lii xale bu góor bee ko def ci man attekat bi qaadi bi ni xoosal leen ma li ne ci pooj bi ñu xoos ko mu teg ko ci lu mel ni kubéeru Nescafé yooyu rek teg ko ci taal bi rek mu commencé def ni neen di def fekk booba xelam loolu la daj kooku jàpp naa ne bu yeewul woon du dem mbooloo maa ngi nii ki sàcc mi ngi seen biir te xamuñu kan la nan la ñuy def ñu ni woo leen mbooloo mi buur attekat bi daal di jël benn buum takk ko ci corde takk ko ci digg néeg bi lëndëmal néeg bi def lu bleu comme bulomatique yooyu def ko ci buum gi moom it comme ku yeewu la mu ne yéen ñiñ ji ñëpp dugg leen ci biir néeg bi yàlla may na ma ci ay secret fekk mi ngi leen di napp yàlla may na ma ci secret loo xam ne ku sàcc rek ma jàpp ko bu ngeen duggee yéen ku nekk na làmbatu ba daj buum gi buum gi moom ku sàcc dana ma ko wax gaa yëpp dugg ci biir ah ku wóolu sa bopp da ngay laal ndax da ngay xam ni buum gi du wax ni yow la am benn ku laal rek ndekete buum gi taqal na sa loxo te yëgoo ko waa ji sàcc moom mu ne ah man su ma laalee buum gi ba buum gi du ni mën a mu bañ a laal buum gi bi mu génnee xaadi ni tàllalal waa ji tàllal mu mu mu bula mu ne ko demal yow du yow keneen tàllalal mu tàllal mu bula mu ne ko demal ki tàllal dara taqul ci loxo mu ne ko yow lu tey nga laal buum gi da ngaa wóoruwul sa bopp kon yaa sàcc yu mel noonu maanaam ay misaal yu bari am na ci di wane ni aji àtte ji ak kilifa war nay am ci ak seetlu goo xam ni yu baree bare mën ngaa jëlu toor teg ko kii wala nga teg ko kooko war te teg te fekk moom ka nga ko war ka nga ko tegut moom moo ko yeyoo yaaqub ku yeewu la bi mu leen xoolee xoolub settantal gars yi ni ko wa ma anta bi mu indi lan ñun sax xam nañu li ñu wax doo ko gëm xam ngeen loolu la ko fa indi moo lay wan ni ñoom wóoluwuñ seen bopp ah borom bi subhanahu wa taala nettaliwaat mu ni yuusufa nekk ca teen ba te xam ngeen ni borom bi yabal malaaka mu ñëw ilham ko wan ko ni ko yow kat di nga génn di nga def nangam di nga def nangam muy li nar a ñëw ci nettali bi am njëgg muy caravane boo xam dañ doon tukki ñëw ba jub teen bi wàcc fa di tànk ndox pour naan ah bi ñu yootoo seen goj bi ci biir teen bi Yuusuf daal di cay jafandu gars yi di xëcc affaire bi diis lool ñu xam ni lii moom xanaa leneen la bi ñu génnee muy xale boo xam ni li ko yàlla subhanahu wa taala dénk ci taar kéemtaan la ah ñu kontaan lool ndax am nañ ab xale daal di koy génne laaj koy laaj ànd ak moom nag léegi jëm fañ doon jëm ndax misra moo nekkoon barab bi ñu naan ndakaaru ci misaal ci neexe commerce ñu demoon fa di def seen commerce bi ñu yegsee ca dëkk ba ñu wàcce Yuusuf wàcce seeni bagage ah léegi nag war koo jaay moom la borom bay wax ni wa qaal numtulati wa sharawhu bi thamanin baxsin darahima maaduda wa kaanu fihi min azahidin bi ñu yegsee léegi nag liñ bëgg mooy comme xale bi ab jaam la nan ko jaay ah borom bi subhanahu wa taala dogal ka ñuy tuddee al aziz daal di koy jënd moom mooy ka nga xam ne daanaka mën nañ ñi mooy président ndax mbirum gouvernement bi yëpp moom moo koy yore ah bi loolu amee borom bi subhanahu wa taala dogal mu daal di koy jënd ba mu ko jëndee kontaan ca lool nag yéeg ak moom ca waruwaayam indi ko ci biir këram daal di ne soxnaam ah tey de yàlla may nañu xéewal goo xam ni mosuñ gis gu ni mel xam nga ne maag yow amuñu doom mu ne waaw mu ne ko gone gi may naa la ko ngir nga doomoo ko akrimi maswa gone gi nag na nga sonn ci moom ndax kii ni ma ko gisee ni mu taaroo laaj naa koy laaj ci yoon waaye li ma tontu mooy wane ni ku ñor la amanda bis dana ñëw ñoraayam gi danañ ko jariñoo moo tax Aïcha radiallahu anha dañ koo laaj ni ko ñen ñoo dàq seetlu ci àddina mu ne xanaa ka jëndoon Yuusuf ak Muusa ñu ni ko ka jëndoon Yuusuf mu ne lu tax mu ne Yuusuf di gone gu xonq coy mu xool ko rek seetlu ci ay seetlu wax ko te fekk lam seetlu lépp am Moussa nag mu ni Moussa ba muy wut secrétaire bu ko gën a jege dafa tànn kam bokkal nga defee ni wàllu mbokk moo deret moo tax mu tànn ko fekk déedéet da di Haaruna ku ku mat lam doonoon moo tax mu ne wajal li waziran min ahli Haaruna axi mu ni ñaar ñooñu ku leen dàq tànn ci àddina amut kon Yuusuf alayhi salaam yàlla dénk na ko mën a firi gént incha allahu ab yonent lay doon ku taaru la lool neex a xool te it boo ko laajee ay laaj bu la tontoo da ngay xam ni kii yàpp numtrati la gone la gone la waaye nag wax dëgg yàlla mbuusam gone la muñ def yàpp mag comme ni ko wala fi waxee mbuusam gone mun def yàpp mag ndax tontu ya muy tontu du tonti gone fekk sunu borom mi ngi koy préparé pour mu war a jiite allahu akbar naka ngay jiitee loo xamut kon fawu Yuusuf mu génn ci loxol baayam ñu tàbbal ko ca teen ba mu génn ca teen ba tàbbi ci biir pale bi ngir ëllëg moom moo war a yore pale bi moo tax mbokk yi gis nga borom bi subhanahu wa taala ku kéemtaane la léeg-léeg muy def ab yëf mbir mi jaar ci benn chaîne moo xam daa métti moo xam dafa neex fekk am na lu topp ca gannaaw walakin akthara annaasi la yaalamun nit ñi xamuñu ah jàpp naa ni sunu sunu sunu président bii bii nii tey gis ngeen ay weer ci ginnaaw yéen ñëpp yéen a ngi koy fàttaliku ca nguur gam nekkoon xëy nañ dàq ko ca mu doye di lool di dem ci këri diine yi sàkk walla lu ne mu dugg ci ah xeeti coono yooyu mu daj ak toroxtaange googu yooyu yëpp ndekete yow moo war a nekk buur ñun ñii ñëpp ak analyse kat yëpp kenn xamu ko ci woon. ndeke yàlla lépp lu mu def rek mu neex ak mu naqari am na lu tax keroog bañ xëyee ni moom moo jiite réew mi ñëpp la bett fekk borom bi lépp lu muy def rek moom am na lu muy waajal subhanahu wa taala. Yuusufa dugg si ci biir pale bi ngir ëllëg moom la yàlla namm ni moo war a jiite pale bi waaye mbir mi nag jotagut. tey nag dafa war a nekk ab yonent natt yi mu jaar war nay tax mu xam ñim jiite ñan lañ ndax dañuy wax ne président bu la gën a sonn moo la war a mën a ëpp yërmande ma tekki ni su banut ma tekki ni su banut président bu la gën a sonn moo la war a ëpp yërmande ci bis bu faloo ca ñam jiite ma tekki ni bu banut yuusufa war naa dugg ci coono yi ngir bu jiitee mu yërëm nit ñi yuusufa war naa tàbbi kaso ngir am na ñoo xam ni kaso ba lañ nar a dee te ku leen waar du leen fa fekk kon faw waa ji dugg si kaso pour waar leen yuusufa war naa jiite pale bi te jiite pale yombut kon faw mu jaar ci biir pale bi xam ruqruqaat yi fi nekk yépp ngir bis bu ko jiitee mbir mi yépp jaar yoon noonu yuusufa nekk ci biir pale bi nekk comme doomi buur doomi prince am jàmm bàyyi ma nga ca àll ba lu ko neex lay lekk moom ya moom yuusuf lu ko lekk neex lay naan am jàmm amul benn problème waaye nag fa inna maa al usri yusran inna maa al usri yusran dawaamul xaali min al muxaal sax dàkk di mel nen arab yi nee nañ yàlla defalu ko kenn sax dàkk di mel nen di neex sax dàkk di naqari loolu yàlla defu ko kenn saa boo gisee muy neex seentul ni jafe-jafe yaa ngi ñëw saa boo gisee mu jafe seentul ni yombal a ngi ñëw moo tax benn borom xam-xam moom dani bu amee jafe-jafe lay kontaan moom ñu ni ko lu tax mu ni daf maa wóor ni rek ginnaaw jafe-jafe yombal ay ñëw mu ni su ma amee yombal man damay tiit ci saa bopp lu tax mu ni damay xam ni ginnaaw yombal jafe-jafe yi ñëw mu ne moo tax moom safaanu nit ñi lay def léegi su ko defee doomu aadama bu nekk na bàyyi xel ni neex saxut naqari saxut am saxut ñàkk saxut man saxut ñàkk man saxut yusufa xëy benn bis rek ci biir pale bi borom bi natt ko nattoom bu rëy ba nag moom la yàlla wax ni wa raawadathu allati huwa fi baytiha an nafsi jigéen a ngi ci pale bi joo xam ni mooy jabari buur jabari buur it xam ngeen du nekk jigéen ju ne ku ñuy tànn lay doon nekk jabari buur ci boppam yusuf moo ko teree nelaw Yusuf kaay indil ma ma lekk Yusuf kaay indil ma ma naan te am na ñeneen ñu ko mën a def ci pale bi fekk loolu lépp buntu lay wut ci moom waaye nag léeg-léeg fulla doomu aadama su ko amee doo neex a dugg Yusuf ku bëri woon fulla la suñu borom mu ni ndaw sa sàkku na Yusuf ay yoon sàkku ko ay yoon waaye sàkku yoo xamante ni nekkul directement da ko def indirectement di di wax ay wax ak di jëf ay jëf ak di ko yónni yónni loo kaay ubbil ma sama buntu beeg kaay ajal ma sama fenêtre beeg. yooyu yëf yëfaan fekk mi ngi bëgg yuusuf waaye yuusuf neexu la ñeme waaye benn bis ci bis yi rek ndaw si daal di koy jekku fekk jëkkëram génn mu jekku yuusuf tëj bunti kër gi futteeku mel na ko ndeyam juree woon ni ko haytalak tey moom foo jaar ñu ànd say moom xoolal yuusuf alayhi salaatu wassalaam yàlla ni mu màggeeg ni mu fooree yonent bii muy préparé pour mu nekk bu yonent moom lay test tey test bu metti bii Yusuf ne ko maada allah maa ngi muslu ci yàlla ci lu bon loolu nga may woo wan ko gannaaw man même bu ma rusul woon ragalul woon yàlla rus naa sa jëkkër lim ma defal ci ay teraanga rus naa koo war allahu akbar gor waxuma la yonent dama ni gor day gore ba xëy dee gor dëgg-dëgg day gore ba xëy dee même bu ma ragalul woon yàlla innahu rabbi rabb foofu du tekki yàlla li muy tekki mooy kilifa njaati gi ndax bu njëkk dañ doon wax rabb njaati gi kii de sama njaati gi la ah ak ahsana maswaay rafetal na ma yombalal na ma def na ma baay rus naa mukk di njaaloog soxnaam ndaw si ni ko li ma la wax boo ko deful tey lu bon laa lay def tey bërberanteeg moom yusuf di bañ borom bi mu mel ni ku yénkeewal yusufa alayhi salaatu wasalaam ni ko dawal yusuf gestu rek seen bunt bi daal di tëjee ko te dañ koo tëjoon nag waxuma dañ koo tëjoon de dañu koon karaj karaj muy ñaari yoon ndax arab xam ngeen xallaqat xallaqat bi tasdiid su ko arab yi waxee mooy ne tëj ne tëjaat tëj gu dëgër waaye buntu ba borom bi subhanahu wa taala dal di koy tijj ndax borom bi subhanahu wa taala ku am ay yombal la ah noonu yusufa alayhi salaatu wasalaam daal di daw di génn bi mu dawee di génn ca la dajeeg ndekete buur a ngi yegsi bi mu yegsee yusuf ni teg taxaw waxut ndaw si daal di koy njëkkantu lii moom nag moom moom moom nag mooy yaa gisal sa bët kenn nettaliwu la ko gis nga ko nii saa boo génnee ci pale bi daf ma doon sàkku tey la ko yàlla doog a feeñal mi ngi nii nag góor gi nak nakal siggi xool ndaw si moom it al aziz ku yeewu woon la moom it mu siggi xool ndaw si siggi xool yuusuf mel ni xelam li mu koy may mooy lii pexem ndaw si la mu ni ko illaa an yusjana bu yow nga gaaw tëj ko léegi nag laa la wax nag boo ko deful nag moom na commencé di ko xam nga léeg-léeg nit bu fekkee dafa dafa jaxasoo mën naa jël décision bu mu war a jël moo tax jigéen ku bari ay pexe la gis ngeen ni mu def ak yuusuf ba yegsi fi mu yegsi ni ko ah gis nga mi ngi ni illaa an yusjana tëj dong laa ci xam aw adabun ali wala dóor bam dee rek buur daal di jaaxle yuusuf moom mi ngi ni tekk waxut foofu nag ci nettali boobu am njàng wala ay njàng wala ay bind yu baree bare bari mbokk yi mi ngi ci ba ci njëkk mooy doomu aadama lu mu baax baax baax baax lu mu ragal ragal ragal yàlla na séentu ay nattu nit ki ak mbaaxam ak góorgóorloom taxut suñu borom ni du ko nattu de yonent yàlla bi ne ki gën a metti nattu ci kaw suuf mooy yonent yi ña ca topp topp ci ña ca topp topp ca ku nekk sa ngëm yàlla nu mu toll noonu la la yàlla nattoo. kon nag boo gisee nit ab nattoom metti ñun da ngay dégg ñu ne am ndeysaan diw di moom nangam di ko yërëmtal fekk déedéet kookaa la gën téeméeri junni yoon ndax yàlla kum bëgg rek lay nattu kooku benn la ñaareel bi mooy yuusufa alayhi salaatu wasalaam ndaw si sàkku na ko ay yoon mu lànk bii nag sàkku bii dafa dafa ëpp dafa ëpp yi loxo moo tax buur jot ci jigéen mooy rëbbi góor góor mooy rëbbi jigéen di sooy waaye néew na lu jigéen rëbb góor sooy loolu nañ ci bàyyi xel rawatina jamono ji ñu toll nga xam ne jamono yi fitna la jigéen néew na lu muy rëbb góor sooy góor kay moo doon rëbbi jigéen sooy loolu lañu yàgg xam beneen bi ci topp mooy tuumaal nit ci lu mu defut moo tax saa boo déggatee ñu yëkkati lu ñaaw teg ko ci nit moo ànd ak xale beeg moo ko ëmbal ak moo ko nangam moo ko fii ak waaja déggoo mu ni man maa ko def tegoo ci sa bët téye ci sa gémmiñ bokk na ci bàkkaar yi gën a gaaw yàlla alak la yàgg sa njaboot mooy tuumaal gor gor su set wecc digganteem ak boroomam nga waxal ko lu mu defut loolu mën na laa yàqal yow même bu fekkee ñaanut lu bon sax jëm si ci yow information yi ngeen di dégg ak diw moo def lee diw moo def laa diw moo moom daal na taxaw ni maa ko def wala nga fekkee ko foofu nag nit ñi léeg-léeg rajo yeeg télévision yeeg ila axiri day yóbbaale nit ñi diwa ko def ak ak loo ko en en en sax même bu fekkonte ni sax sa adversaire la bul bu mu tax nga wax laa yajrimannakum shanaanu qawmin ala alla taadilu même bu fekkee sa adversaire la maandul ca lañ koy waxal ndax yuusufa xam ngeen ni lii kat du dëgg ndaw si mooy wax rek al aziz daal di wëlbatiku ni yuusuf yow lii ndaw si wax dëgg la wala du dëgg mu ne ko giñal naa la ci yàlla li mu wax du dëgg hiya raawadatni an nafsi moom mii moo ma doon sàkku indil ab tegtal yuusuf yàlla daal di koy yenkeewal ni ko léegi léegi ma may la preuve buy wane ni yow dañ la doon sàkku ndeke ndaw si bi muy dàq yuusuf yuusuf di daw ndaw si dab na ko ba yootu mbub mi ca gannaaw rek xëcc mu ni tareet foofu borom xam-xam yi dañuy wax ni shahid bi yàlla wax ci alquran ñenn ñi ni ab liir la ñenn ñi ni waxambaane la am na ñu ni déedéet du liir lu tax du liir mooy shahid muy seede ci lislaam pour ñu ne nit mat na seede faw mu nekk nit nekk góor di kenn ba pare mat mu kàllaf moo tax ñoom ñu ne du liir am na ñu ni ohon kay ab liir la ñun loolu lañ gis ni mooy li gën a dëgër ngir la koy wane mooy nekkul charte ci shahid rawatina ci kéemtaan gu mel nii faw mu nekk góor ba pare nekk waxuma waxuma ci lislaam ji lu jiitu lislaam laa wax nekkul ni charte la faaw mu nekk góor nekk liir ndax juréy ji doon na jaamu yàlla ñu tuumaal ko ni ko ndaw si nee na yaa njaaloog moom mu julli ñaari rakka ñaan yàlla ci xissa bu gudd ba mu ñaanee yàlla xale bi la daal di jël loxo bi ni ko dagaj ci biir bi ni ko hé kuy sa baay mu ni sàmm ba nekk ca tool baayu diw moo ëmbal sama yaay moo tax ma judd te loola shahid la nit ñi nangu nañ ko te loolu xadis la wér mi ngi ci buxaari comme nangu nañ foofu mu nekk shahid laa shakka ne fii war naa mën a nekk shahid moo tax li ñu jàpp mooy te yonent bi nee na bokk na ci kéemtaani yàlla yàlla def ñetti liir yu wax muy xale booba ak isa ibni mariam ak liir bii yusuf ni dinaa indi benn seede boo xam ni xamuma kon du ma faral te xam na la kon boo nekkee ci dëgg dina la faral yow fekk benn jigéen seen mbokk mi ngi woon ci biir pale bi bu am doom ñu ni woo leen xale bi mu ñëw bi yaay ji dikkee indi gone gi buur sax jàpp na ni kii moom day font moom yusuf daal di ñaan boromam subhanahu wa taala xale bi daal di wax liir bi daal ni àtte bi daal jërut kenn di ci jot jërut muy gudd daa xotti mu bam xool leen fu mu xotti su dee ci kanam la ni tareet yusuf moo doon sàkku ji ndaw si ndaw si di fent xotti mu bam su dee ci gannaaw la ko xotti yusuf moo doon daw ndaw si di ko dàq xotti mu bam mu jeex bi ñu xoolee gis ni affaire baa nga ni tareet ca gannaaw foofu jàpp naa ni wax dëgg yàlla da nga ci jàngee ne ndekete góor dina yegg ci nopp soxnaam ba yegg foo xam ni da ngay gis naaj wi ni daan soxna si ne naajul daa xiin nga nangu ni daa xiin ndax atte bi leer na mu ne innahu min kaydikunna inna kaydakunna azim lii de pexem jigéen kese la yusuf aradan haza yusuf fàtte fàtte loolu eh bu ko defat yow wastaghfir li zanbi góor gu ñàkk fayda rek mooy def loolu lu toll ni sa soxna moo doon sàkku sa surga nga yëg ko ba noppi minimiser ko lu dul eh ndaw si yaa ko tooñ baalu ko yusuf baal ñu àq warta woon a yem foofu am na ci góor yi tey yi góor ñoo xam ne seeni soxna ñoo leen yilif boo nekkee seeni surga xam ca dara boo dëkkee seen kër xam sa dara booy liggéey seen entreprise xam te dara ndax soxna si lu mu wax moom moom ngay def wallahi bari waa na lu nit di def muy ay njaaxum yépp soxnaa ma ko digal kon yooyu matuk góor war naa romb foofu dëgg la ñu naan jigéen bu kenn diisoog moom déedéet jigéen dañuy diisoog moom ndax yonent bi toll na ci situation bu garaaw ni saxaaba yi wattu leen ñépp kenn wattuwut ndax mer ndax lam da def ci sulhul hudaybiya waaye ba ko ummu salama ne watul nga dem sa yoon ba mu ko defee rek ci la yëf yépp sotti kon danañ diisoog jigéen waaye kenn du ko bàyyi mu nekk njiit moo tax man bu ma jékki-jékkee dégg ñu ne fal nañ premier ministre jigéen ma jékki-jékki am ñu ne police bi jigéen a ko jiite te fu bu ngeen moytu réew mi yonent bi day sallallahu alayhi wa sallam nee na lan yufliha qawmun wallaw amrahum imraa askan woo xam ne jigéen a jiite seen i mbir alko rek loolu la yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam ñi jàng histoire laaj leen réew yi nga xamante ni dafa mas a am ay ren ay buur yu jigéen laaj leen leen ñi xam histoire dëgg waxuma ñi doon dégg rek information ñi xam histoire fan lan la benn xeetu suux ak musiba goo xam ne yóbbee na leen ko kawaris bu doon góor a jiite kon gis nga ndeke góor dana yegg ci ñàkk a mat ba soxnaam moo koy wax muy def kii nag àgg na ci nobel ci soxnaam moo tax bëgg gu ëpp nobel gu ëpp bu fekkee góor def na ko ci soxnaam mën na laa dugal sax ci mooy yàlla kon ndeke kii moom fiir moom defu ko kooku benn la beneen bi ci des di nga ci jàng ndekete nit foo mën a toll ragalal yàlla gis nga boo ragalee yàlla situation boo dugg lu mu garaaw garaaw yàlla moo la ciy génne lii amaana kenn ci nit ñi mi ngi koy dégg jàpp ni lii ab yonent rek a ko man déedéet ginnaaw yonent yi lu mel nii yàlla defal na ko ay nit ñu mucc ca benn waaye ngi ni boo xam ne borom xam-xam yi dañ koy nettali ca jamono ju yàgg ja ñu koy wax Rubaya ibn Qusaym Rubaya dafa nekk jaamukatu yàlla di waar xale yu jigéen yi rek ñuy muuru waa dëkk bi mere ko tër am pexe seet xale bu jigéen bu rafet ni ko daal dañoo bëgg nga koj ko buy dem jàkka ja rek nga la la la nga am ko rek kott ko daanu ngeen daanu yéen ñaar su ko defee nit ñi ñëw daw yuuxaloo Rubaya génn waxtu fajar di dem rek ndaw si daal di ñëw jege si ko bi muy waaje agsi rek waa ji def benn alerte yuuxu allahu akbar bi mu defee noonu ndaw si tiit arrière bi mu arrière mu ragal loo ko yàlla ndax melokaan wii tey buñ la ci faatoon dana baax ci yow ndax melokaan wii tey buñ ci faatumaa yow àgg suñu borom di nga tàbbi ajana xoolal melokaan wii la yàlla dénk te di ko waar di ko waar di ko waar ba ndaw si daanu xëm bi ndaw si daanoo xëm ba mu ximmali ko jóg mu jëntal gi waa dëkk bi dañoo réccu luñ doon defee loolu dañ ne ndaw si ci ñi daq jaamu yàlla ci dëkk bi la bokk léegi dëkk ba sax dañ doon wax naan suñu yëgoon ndaw si nga xam ne lu fi yàqu ci dëkk bi ci moom lañ ko doon jaarale bu ñu yëgoon duñ ko booleeg rubaya ndax suppi na ko ba def ko jaamukati yàlla gis nga ndaw si bi mu faatoo ñi ko doon sang dañuy wax ni faar yi mën nañ koo wàññi ndax mën a woor ak mën a jaamu yàlla ci jeexaay fii ci suñ dëkk bii benn waaye ngi fi boo xam ne su ma tuddoon turam ñu bari ci ñun danañ ko xam ab jàngalekat la ab yarkat la fam nekk dafa góorgóorlu ci diine mën naa bañ a tudd turam waaye su ma ko tuddoon ñu bari danañ ko xam man xam naa ko dem naa ba këram waa jooju fam nekk di fa góorgóorlu ñenn ca ña dëkk ak moom ca koñ ba ñoo ko een fexeel ko am pexe jël benn ab jigéen kereyal ko ba mu jekk defar ko ba mu jekk ni ko diw daal bis sàngam këram kenn du fa nekk dañu bëgg nga bett ko ca kër ga njaaloog moom su ko defee ñu am prétexte bu ñu mën a jaar ci moom waa ji toog ba yoor yoor rek kenn newul ca kër ga jigéen ji daal di yegsi ndeke mi ngi muuru muuru lu ndeke mi ngi sol rob mi ngi def yaramu neen defaru ba jigéen di mel na mu war a mel yegsi ba ci moom rek futteeku rek riir wuti ko waa ji moom it def tasarruful hakim daal di jóg ndànk dawul deful dara parce que am na lu mu nar comme jóg na jëm si ci ndaw si ndaw si defee ne da koo nangul li mu bëgg mu yegg si mel ni ku koy kott kottul rek daal téye bu ligi fii bi mu ne nikk fii naj ko ba ndaw si xulli ba di jàpp ni day dee mu téye beneen loxo bi ci ndodd gi ni ko génn lañ génn moom mi ngi sol yére moom ko góor gi ndaw saa ngi def yaramu neen waa ji téye ci buli gi loxom ndeyjoor bi téye càmmoñ bi ci baax bi ànd ak moom ba ca mbedd ma ba nit ñëpp mu ne hey yéen ñëpp kaay leen xool ñu gis xam na ni su doon jàll du siiwalee boppam noonu waaye ndaw sa dana rek ñi ci yegg si yépp lañu wax mooy lii de wax dëgg yàlla jarul uti firnde waa ji nii la ko yàlla musalee te ki may wax fii la dëkk ci dëkk bii ci Sénégal gii la dëkk kon yooyu moo la li ma ci jublu mooy nga xam ni ragalal yàlla jubalal waaye tuuma saa bu yëkkati koy egsi ci sa kaw yàlla dana la setal walaw baada xiin ak lu mu yàgg-yàgg-yàgg yusuf alayhi salaatu wasalaam ah yàlla xitili na ko ci xitili gu mel nii léegi la ca des mooy ndaw si nag xam na ni def na njaaxum yusuf suñ ko bàyyee mu nekk ci dëkk bi problème dina am ndaw si topp jaba buur di yëy nopp bi ne ko na nga ko tëj gis nga fi mu nekk nii boo ko tëjut waa dëkk bi yëpp danañ xam ni kon man maa def li ma def ndax léegi nangu na xam na ni léegi mënatul a lay mu ne ko soo ko tëjoon fi mu nekk nii dootuñ waxati coowul moo ko doon sàkk waaye coowul lu tax mu tëj ko la ñuy wax gis nga jigéen dana man pexe mel ni nguur dana def loolu gis nga léeg-léeg suñu xeeti nguur yi dañuy jékki-jékki benn problème bu rëy am ñu xam ni boo ko fajut nit ñi danañ jóg da ñoom ñooy dem créer beneen problème fële ñu régler loolu misaal bi ma ciy joxe mën ngaa jékki-jékki ba mu yàgg ñu ne ah nangam jii de ku ko def danañ la def nangam ñu am kuñ bëgg a tuumaal ñoom ñu dem defal ko seen bopp ñoom fekk yow lañ bëgg a taqal yow lañ bëgg a taqal yow ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne ñi ko xam-xam nañ ko ñi ko réeree ko réere nguur day faral def loolu léeg-léeg mën naa créer benn affaire ngir bëgg tëj ay gémmiñ comme jékki-jékki tëj ku deful dara parce que nit ñaa ngi doon coow waaw gouvernement bi def na lii gouvernement def na la ñoom ñooy toog ci seen biir créer benn affaire bu ngand ni ko rajax ci bopp nit ñi pour fàtte leen bii wax leen ci bee noonu la ndaw si def loo buur buur daal di yëkkati Yuusuf yóbbu xoolal mbokk yi Yuusuf alayhi salaam ni mu sellee ni mu baaxee ni mu ragalee yàlla dañ lay tëj mu ne as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi ndaw si dafa mujj continuer ci biir kër gi ni ko comme man siiw naa fi ne bañatuma ci dara léegi moom danañ njaalo Yuusuf ni ko nga tëj ma kaso moo ma gënal ma njaalo ak yow beneen njàngat bi nga ci def mbokk yi Yuusuf alayhi salaatu wassalaam yonent yàlla la yonent yàlla la yàlla moo ko dimbale moo tax mu mën a mucc Yuusuf biñ ko laajee dafa wax ni bu dul woon ak dimbalam yàlla ma tarxiis te yàlla loolu la wax ci alquran wa laqad hammat bihi wa hamma biha foofu nag dañu yaakaar ni al hamm foofu li muy tekki mooy ndaw si daa amoon yéene njaaloog daf déedéet kaana hammu al mar'a hammu iqdaam wa hammu yusuf hammu ihjaab ndaw si dafa fes yéene woon lu mu ko laaj ne yusuf njaaloog moom yusuf daf ko naroon a dóor yàlla moo ko xamal ni ko bul ko def boo ko dóoree rek dina am preuve ci sa kaw borom xam-xam yi li ëpp ci mu xaqiqoon dañuy wax ne Yuusuf da ko naroon a dóor waaye sunu borom moo ni ko boo ko dóoree rek da ngay gën a dugal sa bopp bu ko dóor waaye Yuusuf musul am xemem teef jëm ci ndaw si déedéet yàlla moo ko setal man ak yow ak keneen ak keneen wala ayaasu billah ku ci yàlla nattoo woon situation yi ndax da nga mucc yow jigéen joo xam ni mel na nam war a mel ñu tànn ko tànninu jabari buur mu nekk ci biir paleem te xoolal Yuusuf gone la étranger la ab jaam la te it ndaw see ko sàkk waaye yëpp bi mu dajoo yusuf mu ni maadallah gis nga njaalo sa yëg jigéen joo xam ne lewu la soo ko defee benn yoon ci sa dund yàlla dina xëcc ci sa imaan loo xam dootul dellu see ba kero ngay faatu abadan même boo tuubee mën ngaa tuub nag yàlla nangu la tuub loolu jotewul dara mën ngaa tuub yàlla baal la je bàkkaar bi mën ngaa góorgóorlu di baax yàlla dimbali la waaye yow boo waxee te yàlla tax di nga sentir ni am na loo manqué loo xam ba léegi dellu seegul moo tax Abu Hurayra day wax ni gis nga nit ki bu njaaloo imaanam day yëkkati ko ba tiim ko comme ni parasol di tiimee bopp mu ni boo tuubee nag mu dee boo tuubul nag mu jaaree fa imaan ji yépp sa xëy dem bu booba boo tuubul kon tuuma yu mel nii yàgg naa dal ci kaw gor ñu tëj ko duggum kaso nag gor waru koo ragal déedéet nga ñàkk a nekk ci dëgg la gor war a ragal parce que yàlla tànn gi mu tànn Yuusuf mu war a dem kaso mbokk yi ñaata lañ tëj ñoo xamante ni peine de mort lañ leen def ñaata ñoo xam ne ak caay-caay moo tax ñu dugal leen kaso pour war leen a yaram ñaata nit mooy ñoo xam ne xamuñ seen diine jot a tàbbi kaso ñooñu ñëpp Yuusuf war leen faa fekk fa la ko yàlla joxee nubuwa moo leen war a defar moo leen war a waar moo leen war a jubbanti ëllëgati si biir même bu nekkee président de la république moom xam na lu ne biir kaso moom Yuusuf alayhi salaatu wasalaam borom bi natt ko mu nekk biir kaso juróom-ñaari at kon yu bare bare tey ay xeeti tuuma la yoo xam dañ koy yii nag yàlla mën naa dimbali nit ki du yegg fenn benn borom xam-xam day nettali ni benn waaye dafa rey nit bi mu reyee nit am kum ko jiiñ ñu tëj kooku fukki at ak nangam bañ ko tëjee li may wax ni Arabie Saoudite la xewe woon biñ ko tëjee bi bis bi nga xamante ni mooy alxamis ji ñu xëy ni ko àjjuma suba lañ lay rey defal sa wasiya wasiya mooy su ma dee nañ def nangam ak nangam mu def testament ba noppi ca guddi googu mu julli ñaar rakk mu ne yàlla yow de xam nga ni ñi ngi may rey te yow xam nga ni man defuma su fekkente ne nangu gi ngay nangu ñaan yaa ngi koy def ba tey te gëm naa loolu wallu ma ci lii ma nekkee ñu andi ko comme ñoom nit ñi def ginnaaw bu ñu jullee jumaa ba nag war a rey ki ñuy rey ñu teg ko nit ñi wër ko sa yaaf bi taxaw mooy ki war a rey fi ñu joxee alerte bi rek pour mu war a rey rek benn waaye daggee ca lang ga ca isat bi bu leen ko rey man maa reyoon waa ji kii di ñaanam nangu na coow li jug kaw ndax moom la ndax du moom ñu ni kon nañ fomm rey gi bàyyi ba beneen yoon bi ñu defee ay enquête effectivement waa ji dañ ko xool tëj nañ ko ci ay at ndekete rubba musibatin jarat man faa bari waa na koo xam tëj giñ ko tëj kaso sabab lay doon mokkal ci alxuraan am na koo xam tëj giñ ko tëj kaso njaaxum gu rëy la naroon a tàbbi yàlla fegal ko ko ngir ñu tëj ko am na koo xam ne tëj giñ ko tëj kaso borom bi subhanahu wa taala su ko bàyyiwul woon tëjuñu ko mën naa tàbbi ci loo xam ne alkandem ca lay nekk am na koo xam ne xam na dara bu dikkee ci biir kaso bi war naa mën a jàngale am na koo xam ne borom bi nar na koo jox ay xéewal yu rëy te martabaam yeggu fa sunu borom faw mu teg la ci ay mettit lu la yëkkati te noonu la sunu borom di defee walakin akthar annaasi la yaalamuun kon nu xam ni yusufa alayhi salatu salaam fexeel nañ ko léegi la des mooy tëj nañ ko kaso buñ ko tëjee kaso nag la nga xamante ni moo ko fay fekk ci biir kaso ba ak njàngale mu rëy ma ak fala ko sunu borom di joxee dubu wa ba nam fa génnee xëy dikkaat ci pale bi nekk fa buur ndekete bari na fu ñu lay dàqee nga wan gannaaw di jooy waaye booy dellu si da ngay kontaan ndax keroog ba ñuy génn yoon sa sala makka muy dem di jooy te naan yaa ma gënal ci dëkk yi bu dul woon dañ maa génn du ma génn ak keroog ba muy def fatxu makka jekku ñëpp naan leen lu ngeen yaakaar ma def leen ko tey diggante bi du ay at yu soree waaye yàlla nag moom ci ginnaaw dogal ya ci ginnaaw kumpa ya ca lay def la nga xamante ni mooy dogal ya nu ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu defal ñu tawfiq boole ñu ci nga xam yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana allahumma surna fawqa al-ardi wa tahta al-ardi wa yawma al-ardi alayk اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الهم والغم والعجز والكسل ونعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعينا دامعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا يا ارحم الراحمين صل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد واله وصحبه اجمعين